salaam salaam euh, di ziar ñëpp ah di bëggee nga xam ne instant bi yaa ngi escorté euh, sur la mer bande fréquence 93 point 5 euh, Ngaye FM bon noonu la demee bon je m'excuse du retard ah ok noonu la demee comme ni mu leen ko wax woon ah, ñi nga xam ne instant bi bon ñu ngi may suivre sur Facebook ak WhatsApp bon gis nañ que ni Petit Mac moo doon sama invité si couleur urbaine moom tamit je crois que tamit def na wàllam affiche bi jàll na. képp nga xam ni fans Petit Magne nga bon euh, tey euh, moom moo ñëw si euh, kër gi la maison yàgg nañoo daje ah yàgg nañoo daje bon si ay émission yu gën a yaatu comme ça su nekk ni mu koy waxee nit ñi man li ma intéressé mooy culture pour nit ñi comprendre quoi du question de concept wala ay kii yu dema noonu parce que ñu si bëri dañ ma doon gis ci côté hip hop mais li ma intéressé mooy wàllum culture man moo ma intéressé képp ku nga xam dama gis yaa ngi yëngu ci wàllum culture dama lay indi sama euh, plateau toog euh, ñu yaatala euh, comme ni mu koy waxee man culture moom mu ñor moom mu intéressant ok noonu la demee tax ma dalal Petit Math bon xam naa tey du nekk fii di kii parce que waxtu bi moo xaw a dab léegi dañuy tàmbali ñu micro ñu waxtaan ak moom mi ngi nii si plateau am na ku ma àndal ci kanam tuuti moom dina ma wax kan la ok noonu lay.

ba tax euh, mu waral mu ñëw toog sam plateau ñu seq waxtaan ok noonu lay demee ñu bàyyi la nga waxtaan ak euh, ñi nga xam ne auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin rahman rahim wa iyyaka nasta'in ihdina waaw ginnaaw buñ sant yàlla julli ci yonent bi sant Sëriñ Tuubaa di sant waa Kàddu Jaañ sama wasila yi di leen ñaanal fan wu gudd ak wér-gu-yaram waaw di nuyu waa ngaay gi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci ndoxalu monsieur le maire waaw mun tegal ma ko ci loxo ñëpp du nuyu ngooñ ngiwal ga ma jóge waaw du nuyu waa Ngaay lu nuyu Tafa du nuyu suma jarbaat Adja ma fi fekk ak suma technicien bi. maam Gora maam Gor. Ah. Mm. di nuyu Demba sama rakk bi ma àndal. Mm. merci ok noonu lay demee euh, sànq si biir wax nee naa am na ku mu àndal. Euh, ci kanam tuuti dinañ dëkk Ceewa euh, ah, mais teewul dañuy yaatal ba tey bon présenté wu na léegi. Euh, si noonu euh, bu ko defee moom mu mën ko dugal euh, maanaam composant maanaam ñi nga xam ni da ànd ak petit mic ñooy noonu laa bëgg xam sa membre groupe waaw vraiment tamit sant yàlla rek hmm. ndax tey mën naa ni sumay rek lay àndal hmm. sumay jarbaar sumay doom ñu jàppale ma ci affaire bi waaw guddeeg bëccëg vraiment moom ñu maa ngi leen ñaanal une bonne continuation di leen wax ni leen daal sama seen papa kontaan na ci yéen sen ma kontaan na ci yeen wa am suma xarit yo xam tamit ñi ngi won ties ku melni ni Mam Zal di claviste mo nekkon claviste royal ki royal band ak wa flash de ties moom it jàppale ma ci ak ak single bi quoi vraiment ok legui euh manam su groupe euh depuis bi nga tambalé def musique euh ak legui euh ñaata année ñaata année nga jotta def ci euh, euh, musique bi euh ba xam ñi ngi doon àndal euh, ba léegi ñooñ ngay àndal wala boog dafa am ay changement instant bi. waaw ñi ma doon àndal lay àndal ba léegi rek ñun duñ changé mais boo gisee tey li waral ma génne single yi Mor Seck mooy sama claviste moo te un professeur de la musique. Mm. kenn ku ne xam na ni fa yi amul jot day jàngale. mais vraiment man waxtaan naa ci ak moom ba mu ba mu waroon ñu jàppale mais dafa mujj jour boobu dafa amoon cours mm. de passage di ko gërëm moom it. di ko gërëm muy comme Ndiambe Ndong ñoom Baye Samba ñoom Mondel ñoom ñëpp vraiment. waaye ñoom ñëpp sama man ak sama rakk ji demba di xale bu yaru bon man li muy def moo tax man ko tey nag euh, vraiment dama bëgg nga gëm sa bopp te yaakaar naa affaire bi bu mu génnee àdduna bépp dégg nañ ko moom it ma koy ñaanal une bonne continuation ok li ma bëggoon a comprendre mooy euh, sa premier single bi nga génnee gis naa que ni featuring nga defoon boobu yaa ngi si àndoon ak euh, Baye Samba léegi deuxième bi ñëw li ma bëgg a comprendre mooy sànq yaa ko wax nga ni Demba mi ngi nii toog ba xam dafa bokk sa groupe wala bo comme ni nga njëkkoon def si single best featuring la wala nan la fa demee mm-hmm. waaw dama la demb mi suma rak la yaayam ak suma papa ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. waaw xam nga moom dafa nekkoon ci armée dafa dem ba nga xam ni ñoom danoo mën a may mais gëmul seen bopp mm-hmm. ci laa ko woon ak ba mu ñëw man ko dama bëgg nga gëm sa bopp mais bi ma ànd ak moom def si mu way àdduna bépp dégg nañ ko macha allah te li ci kanam rawul yi bët bu soobee sëriñ tuba nañ ko dégg ci àdduna bi parce que xale la mën na la muy def Euh, te xale bu ndaw la déggal na ma yaru na ma waaw ma koy ñaanal daal mu nangoo déglu consigne rek bu déglu sama consigne rek incha allah fu ñu bëgg a egg nan fa egg incha hmm. ok euh, noonu lay demee parce que tamit euh, à travers vidéo clip bi ngeen génne si nañ la gisee nga ànd ak Petit Mike moo tax question boobu noonu ñëw parce que sa premier si nga gisoon na la ak Baye Samba ki nga ñëw nga ni sa rak la. léegi dañ koy bàyyi mu wax ak ñi nga xam ne sam ñi ngi déglu euh, couleur bi ñu bàyyi la nga présenté wu. ok. waaw dañuy gërëm ñaari waajur rek. Hmm, di gërëm Serigne Fallou Mbacke mi nga xam ni mooy suñu yoon ci yoon Serigne Touba. Hmm. di gërëm sama yaay bu baax. waaw di gërëm sama grand bi nga xam ni mooy Petit Maaj. Hmm. mi nga xam ni bi singal bi jotee su ko neexoon mu dem ànd ak mu ni. damay boykat yi bari nañ fi hmm. mais dafa bàyyi ñep ñew ba ci man ni ma dem ba sama rak nga dama bëgg ñu and ñaari single waaw mais nak li ci karam dal rawiti bëtt hmm. yalla baax na waaw li ma bëggoon xam li ma bëggoon xam moy est ce que mom dafa yag ci musique bi mhm. de telle sorte que moom euh, am na experience wala nan la fa démé wala bok da nga gis talent moo nga wo ko pour ngeen and euh, single boobu wala nan la fa demé nan nan la fa demé wa bo gisé loolu. Hmm. xam nga ngeewal ñun ma sha allah bo juddee rek sha allah kar kar yalla day dalay defal xel. Hmm. mais ñom ci bir xel mom fi ne boy amna ño ñoo xam fi ne man nañu way mais dañu top teug mi. Hmm. même momi sax teug mi la gënon top mais dama dëgg ben jour mu way quoi man ki dal amna lu amna lu may réfléchir quoi amna lu may xalaat. bu ñëwé dina ko war mëna duggal ci way bi quoi. te bu moko duggal ci way bi dina dina doxal rôle bobu ci la ko waaye moom ñoom moo sama nek de passage ñom Fallou Gueye magam vraiment ñom Gora Ndiaye ñom Madio ñom Baye Seigne Abdou Mbeng sama rek ku leen jëm dal ngeewal gep vraiment ñep japp na ci affaire bi quoi xam nga ci la ko waaye ba mu ñëw man ko demba yi ngay dakk mu jëm ci alam na bëgg nga dakk mu jëm ci biir kër gi geumal sa bop mm. li gaay yi def dakk ñu lako mm. ci laa ko détonalement commencé répétition affaire yi méttoon na trop quoi. Mm. xam nga tout début moom sera difficile quoi vraiment. Mm. waaye mel sant yàlla rek ndax bu yàlla boole ak nit ñi ñàkkoo dara. Mm. te man yàlla boole na ma ak nit ñi ñëpp samay waay lañu. ci laa ko ci leen commencé di entre di répété bu ñu xëyee damay jël oto ñu dem répété ci Thiès. tombe temps couvre-feu métti nag trop quoi. te xam nga studio da jël heure ba 6 le jour si ñu war a génne kii bi ci leen génne ci leen dugg mais vraiment gis ko tamit. ok ni nga waxee ni nga waxee dafa mel ni. Mm-hmm. Euh, signoo ak benn euh, label. Mm-hmm. parce que euh, ni studio dafa si poosam. Mm-hmm. instant bi ak benn label daal parce que tamit sa premier single gisoon nañu que. Zebes production. moo ko defoon. ba xam yaa ngi wéy di liggéey ak moom. wala nan la fa demee wala boog da nga dagg sa liggéey ak moom. nan nan la fa demee. wax de passage tamit du gërëm sa best quoi ndax momit vraiment nee naan fecc lu nit bu neexee yaa jaa jàpp ci mbagg ma. première single bi vraiment momit it moo ma gis ne ma grand dal il est temps que nga def benn affaire. moom ma produire gratuitement bon ma def clip bi. gis nga clip bi Boubs invité woon na ma Weekend Star. presque mën naa ne man la mujjee invité Weekend Star. après ci loo jógee foofu dem ITV e xam nga moom ma produire mais bii nag vraiment maa ko def ak samay propre moyens xam nga di wax daal ni maa ngi taalal loxo gars yi daal parce que ñun artistes yi. doo lay jën ndox. ñun ku ñu jàppale leen bëgg daal vraiment ñu ngi tàllal ñëpp loxo. waa ku mën a jàppale parce que tamit affaire yi fi nekk yàlla teg na nu nattu. ñun amuñu lu dëkk bi. suba ngoon ñi ngi xalaat pour lu neex dëkk bi rek. kon ñu ngi tamit ñi ngi ñu ñun ñi ngi seen kanam ñi ngi seen ginnaaw. aussi doole public bi mooy yéen. nit ñi amuñu loolu public bi foog ñun aussi yéen ñu mën a jàppale. Mm. ok euh, noonu la demee léegi Mame damay jox euh, euh, single bi nga xam ni àndoon na seeg Baye Samba bu la neexee tamit mën nga tegu ci kaw léegi jox ma son boobu noonu ñu déglu. Eh, petit Madj ñëw naa yi waaw waaw. ñu bëgg te. baaraama ñu bëkkatal ñu bëkkatal ñu bëkkatal loolu dëkk la ñu bëkkatal ñu bëkkatal waa nga yéen ndax yàgg dëkk la Baye Samba Diouf war ngeen wala aw ma lu dul yéen ma lu dul yéen Ndarpate Arambay Pate Madina Arambay damay sama yaay mu jigéen ju man góor jigéen ju man góor bi ale bi ne tàkk kenn ma sama ma bëgg ma bëgg leen ma bëgg ma bëgg leen. bët yi maaj ay bëggante la Naar. As Diagne yaa ñu jàppale. wóor ma Yacine jiite. waaw waaw. Sall Ngoone médecine. Mbay Baal. lii ñettoo ngi. Gumba Njaay. ant bi yàgg bi. Gumba waaw waaw. sànni bi mu wóor ma borom daaru sebes doomu ndey Ibou Ndim ñooñu yàgg na noo bégal ngaay bàyyi làmb ñëw na bàyyi nabu ñëw na bu dimaaj ñëw na ah bégal leen seeni nabu ñëw na seeni jomba ñëw na bu dimaaj ñëw na ah bégal leen wóor ma màgget wàdd màgget mooy meeru ngaay màgget yaa defar ngaay waaye Mamadou Mbengue Gueye ko sagu ngaay la Jaxu Njaay laa lion Mariama Njaay kenn deemul mu des ah, jëf waa ngaay amuñu seen fay ndax ngaay benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Ngaye FM. ok point 5. ok noonu lay demee comme ni ma la ko waxee tey euh, Petit Madj moo nekk euh, sama invité. %e mi ngi ci locaux :fra %e euh, Ngaye FM 93 point :fra ant ah. ok noonu lay %e demee léegi lan nga wax si suma bu :fra jot a jàll lan nga si wax waaw di sant Yàlla rek ndax %e man li may wax rekk man aw ma lu man Ngaye rekk laa am barke Serigne Touba hmm. aw ma lu gën a fort :fra moo tax way bu ma way rek waa Ngaye laa koy way ndax waa Ngaye ñoom ñoo ñoom ñoo ma bëgg ñoo ma dooleel hmm. ndax %e ragal fete day xañee wërsëg man waa ngaay rek lu ma am tuwaa ngaay mayu ma ko yàlla ba ma ko am maa ngi ñaanal kuy doomu ngaay yàlla na la yàlla defal fanu gudd yàlla dàq leen saytaane lafal leen cat muy xale muy mag muy ndaw man dama fier nekk un mec waa vraiment moo tax cassette bi mu jël ko duppee leen ko ok noonu lay demee ñi nga xam ne bëgg nañ dugg ah euh, jokkook Euh, Petit Mac euh, wala boog bu fekkee am na lu nga xam ne bëgg nañ koo laaj euh, si carrière am bon mën nañ composé 88 628 16 50 ans je crois que numéro bi joxoon nañ ko moom tamit jàllale na jàllale na kii at à travers WhatsApp ak Facebook ñi nga xam ne bëgg nañ dugg bon bëgg koo. Euh, yok tamit ci côté carrière parce que tamit euh, ñom ci lañ bok ñom ñi nga xamné sam ñi ngi déglu couleur urbaine ci lañ bok sa fan ci lañ bok am ñoo nga xamni peut-être euh bon comme ni nga togué ci plateau bi bëggon nañ am lu nga xamni bëggon nañ ko wax euh, directement mën nañ dugg ci numéro bobu non manam li ma bëggon na xam moy est-ce que petit match amna comme supposons est-ce que am nga manager en plus tamit est-ce que nga structure bu nga xam ne ñoom ñoo lay dimbali sa liggéey. Mhm. waaw loolu noonu laa bëggoon a xam. waaw loolu ñu ngi ci ñu ngi ci fan yu passé doon nañ ci réunion quoi. Hmm. wala nañu defal groupe pour maintenant xam nga temps yi passé corona bi moo xawoon bare affaire hmm. mais bu soobee Serigne def benn groupe boo xam ne nañ am ménagère am lépp. Hmm. waaw incha allah di ci talal waa Ngaye yépp loxo daal képp koo xam ni am nga idée ak solution boo xam ne war ngeen ko digal. ubbi nañ la suñuy bunt. mais loolu ñu ngi ci quoi pré réglé nañ ko ba pare quoi. am nañ mélangé rek lépp. ku ñu soxla fi ngay jaar ak lépp. ok kon fi mu ne instant bi képp ku nga xam ni euh, bëgg na jot euh, petit mac kon directement la ko jot amul benn intermédiaire comme ñeneen ñi comme ñeneen ñi ni def daf dafa allo allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi naa def. ah ñoo ngi lay ziar bu baax. mën nga ñëw baaxee tur bi ah wa Penda. waaw Gala waaw mi ngi man eh, nga dug man nga dug directement nga wax mo mi ngi mi ngi lay dégg nii. maa ngi jokkoo Petit Niak. sa Gala. waa Petit maa lay jaar wa ñi ngi lay jaar grand. wa di am contente lool na vraiment ci invitation boobu ñu la defal. merci beaucoup. parce que vraiment da ngay dom ngaay mi ko waxe da ngay dom ngaay bëgg ngaay. ba bo lay yar ak teggine merci beaucoup. gëm sa hmm loolu peut-être nag ku jóg def na ko ci boppam. merci beaucoup xale bu nga xale bu amit teggin nga xale bu jox nit ñi cër nga. jërëjëf Ibba. amoo kenn xaar na yàlla moo tax loolu nga xam ne mooy sa bëgg-bëgg yàlla ci yàlla defal ndam la. jërëjëf jërëjëf nga la pen. vraiment nit ku baax nga. jërëjëf jërëjëf waaw parce que li nga xam neex ma. Mhm. mooy de nit koo xam dafa gëm boppam saa yu xëy mi ngi jóg daan dooleem. ndeysaan xeebul fenn suba ak ngoon. Mhm. yaa ngi romb man boo rombee dama dama lay man dama la def référence parce que dañu nit ko gën a bopp. Mhm. te incha allah rabbi foofu nga nekk bu fi teg sa loxo ci kaw rek ngay jëm. merci beaucoup parce que nit moom bu gënee boppam rek na ko loolu ci invitation bi. ma di jébbus invité uh-huh. loolu fàttewuma ko yow Ngalla Pène yal na yàlla guddal fan yi waaw yaay se yaay Serigne Mbène ñun aussi tamit li ñuy liggéey. Mhm. ñun dëkk bi dana am ngaay dana am ngaay lañuy sagoo. Mhm. kon ñun képp koo xam ne da mhm. leen luy. luy doxal dëkk bi la rek. Mhm. ñun dañ ci war def suñu participation. merci beaucoup parce que lu ma am ci ngaay lañ ko amee. merci beaucoup ñun nun mel waa ngaay na mel. merci loolu nga ko nga nekk ci. Mhm. ak vraiment noonu waajur ba loo jëm nga ko ci. Mhm. ci kaw rek ndax waajur moom ku ko fonk moom ci kaw rek ngay def. merci kontaan nañu. kon yàlla na yàlla defal ndam. amiin Iba kontaan nañu dégg nga ne loolu tamit. merci beaucoup merci beaucoup c'est gentil. Hmm. ok ñu koy jaajëfal kooku. Iba Pène ah, ok. moo nekk fa sapeur pompier. Hmm. ok euh, noonu lay demee léegi dañu ñëw maanaam si côté texte. Mhm. côté texte. peut-être mhm. maak euh, inspiration nan la koy dikkee. Mhm. Euh, texte am nan la koy bindee. ah ak tam si côté répétition nan la koy demee. Hmm. waaw ñun xam nga artiste moom dafa ku nekk ni ngay ni ngay ku nekk ni ngay li ngay créer hmm. man damay bàyyi ba tëdd ba xaaju guddi xam naa samay jabar sax bu nu gàttee xel. Hmm. dina ni kii jëkkër seen sama jëkkër ji xanaa daal dafa dafa dof wala dara. mais man damay tëdd ba xaaju guddi ci la affaire bi dëkkalee ci la jug sama sama vraiment tamit ak euh, sama yi nga ci koñ ku ci ne damay man xam nga tamit affaire amul c'est la famille. ku ci ne nga dem ni ko rak tey loo gis nangam nangam mun kii gis nangam nangam ngeen affaire yi dem def. li fait la force. des bu ma tëddee guddi xalaat waaw ah, la inspiration inspiration bi di quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, euh, dama gis premier single. Mm-hmm. nga léegi deuxième bi euh, nga ñëw nga woy euh, mbëggeel mhm. te pourtant sànq sa biir wax nee nga ñi ngi jógee si mbas bi mhm. euh, di corona gis nañ ku mel ni sa mbokk Malicoumba mhm. génne na benn son boobu mi ngi mi ngi yeete mi ngi mi ngi sensibiliser population pourquoi pas depuis boobu léegi dégguñu la dégguñu la nga woy si corona bi wala tamit nga jël benn son bu nga xam ni da ngay yeete la moo tax nga préféré ñaari titre yooyu bon premier single bi baax na. Mhm. Euh, ci ngéwal nga woy mhm. boobu c'est normal nit fa nga cosaanoo fa nga askanoo mhm. nga wax ka ni lii laa lii laa askanoo léegi la moo tax nga préféré woy mbëggeel te ñu ngi jógee si mbas beeg yooyu loolu nan la fa demee waaw c'est gentil euh, di préfère nuyu Malick Mbose suma grand frère boobu ak aadama Thioune maa ngi leen nuyu bu baax ñoom it ndeysaan waaw boo gisee ma woy mbëggeel xam nga euh, jigéen jigéen mooy sunu yaay te man dama bëgg jigéen mbas mi Euh, vraiment man man damay ñaanal jigen ñi yalla na leen yàlla defal jàmm. gis nga di nga toll situation yoo xam ni foo ko ñoo la ci jappalé ndax tolloo non moment boo xam ne dafa dur dafa dëgër mais jigen ñi ñoy dem marché so leen joxé fukk ñu tek ci fukk. xam nga mo tëdd bu gudd dal ni pourquoi pas dal man man ma njukkal jigéen ñi quoi. bo gisee tay loolu motax moy jigen jigéen ñi jaar ko samay séeri koko nak mais jigéen ñëpp la ko way. mais lutax lutax lutax mbass bi tam génnoo si texte tamit. parce que parce que xam nga xam nga bo gisee lu tax ma wax lool mhm. parce que fi mu ne danoo gën a dal mbalax maan yi parce que dañ ni. Mhm. Euh, rappeurs yi rek fi mu ne sens ñooy sensibiliser. Mhm. wala ñeneen ak ñeneen. léegi nee nañ euh, mbalax maan yi génnuñu benn son. ci wàllu mbass meeg lool waaw yow la moo tax génnoo son ci wax si mbass beeg yooyu tamit. waaw sant yàlla rek. ndax gis nga moment boobu. xam nga li naan xel du jàpp ñaar. Euh, mais sant yàlla rek. sama nekk daf fi xawoon joom yi lakk fi mm-hmm. xam nga ma nekk ci problème doon defaraat néeg beeg yooyu te ton na moment boo xam ni mu am na yoo xam mënut a ànd ak réfléchir quoi waaw mais sant yàlla bu baax rek waaw léegi nii nii fi nga toog nii mm-hmm. est-ce am na benn texte bu nga xam mm-hmm. ni euh, kii nga ko nga nga nga nga nga balancer ñu ko est-ce que mën na nekk comme nii waaw comme li may wax rek euh, ñu xam ni affaire bi mi ngi fi ba léegi ñu jël suñu précaution waa takk masque yi di raxasu hydrogel yi mais na ngewale na na waaw xam nga isa mom sama def mais na ngewale tuuti euh sa xol accompagne wala ñu xol lan sikin sem bat ba wala ma ba sam sikin sem bat nañu do ko ndey ak bay xamni mbass mi yalla nako fi yalla jëlé sikin sem bat ba jappal sikin Tapha gis nga ku nangu lu yàlla dogal doo sonn sa du jeex waaye ko bañ lu yàlla dogal di nga sonn jaaxle bañ du ko fecc sa dara du leer eh naa ci yàlla buur bi dafay dogal ku fi def lu baax ku fi jaar ci lii mu digg la dafa teral ci mbas mi yàlla na ko fi yàlla jële gaa yi takkal masque yi raxas loxo yi eh waaw de près de passage ndeysaan hmm. di profité di jàll ñi nga xam ne dañoo génn àdduna ci mbas mi ndax euh, xel day fatu ci mel ni mbay baabu suma xarit suma seex euh, yàlla jël ko maa ngi ñaan fee mu tëdd Tuuba yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw nekkoon koo xam ne ku baax la woon sama conseiller la waaye yàlla moom kenn du xëcc ak moom waaw yàlla na ko yàlla xare àjjana di ko ñaanal xalif général Touba Kane bi nga xam moom dafa génn àdduna mm. ak suma tante Assou Mbaye Seck di jaale coon Seck nag àdduna bi yëpp barki dem ba su heure bi maa ngi maa ngi waale ñu ngi këram mm. doom jaale ko bu ma ko jaalee nag ci turu euh, artistes yëpp laa dem jaalee ko waale mm. moom it mu kontaan vraiment daal ñi nga xam ne génn nañ àdduna ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla xare àjjana ñu nit yàlla na yàlla defal fan gudd ñu yàgg Euh, euh, mbay Babou mm-hmm. léegi sa relation sa relation ak euh, moom mm-hmm. parce que tamit gis naa que ni yéen da leen doon taxaw ci mm-hmm. fànn yu bëri parce que comme ni nga koy waxee mag mag mag mag mag bu mat mag la te mag bu toogee place am la gis nañ que ni ñu bëri da ñu jël ñu jël ki nekk si ligne bi ñu jël ñu jël ki nekk si allo allo salaamaaleykum allo allo lépp jàmm naka affaire yi sant naa rek. waaw léegi dañu baal nga baax ñu tur bi baax ñu tur bi waaw mën nga mën mën nga wax bët mag. oui allo. waaw ma salaam. kooku. man la man la du Diop. waaw kooku suma grand frère la suma sëriñ sama xarit du Diop. yaa ngi bu baax. ñu ngi si jàmm bu baax. waaw maa ñaan sa mborom mi nga xam ne moo yor lépp. amin amin ndax vraiment ku ma jox tër nga. Mhm. ku joxe ñëpp cër nga. merci beaucoup Gara ndax ndax naa saa booy yeewoo. da ngaa jàpp ne ñoom ne fëgg ma nii nga pare. te loolu loolu yëg na vraiment su borom ñi xam mooy bëgg mooy defal lépp yaa yaa su ma àggale suñu suñu see àgg. te su ma su ma su ma bàyyi sa sa waa ji dama njaay ak ma njaay yàgg fi lool ak xale yi yëpp. amiin amiin ak sama jóg ak ak ak ak raam. xaar mi yëpp. ak ma bàyyi si yëpp. ñaan ñu su borom ñaan su borom ñi xam ne mooy lépp. yaa yaa yaa àgg fi ñu see àgg. merci beaucoup vraiment vraiment ku baax la. merci suma grand bu baax la. waaw yow xam merci beaucoup. allo. oui. waaw ah, salaamaaleykum Mate. salaam. ma naa guudu këram. bay naar paate aram bay maa ji na aram bay. xam ne yow ma toll rek dama lay ñaanal. loo mën leen. yàlla na nga mën déwén lu ko raw. ci barke Serigne Fallou Mbacké amiin amiin amiin amiin kooku mooy nabu ñi ma njaboot barke Serigne Touba ñi ma say soxna. amiin amiin amiin amiin. loo ñàkk rek ak njaboota la ko xañ barke Serigne Touba. yéen a tax ma ñeme de. maa ngi lay ñaanal na kuntu mi ci ndaari sagam aawa nday la loo mën ren yàlla na nga mën déwén lu ko raw. amiin amiin amiin ci ok noonu lay demee euh, ñu ngi jaajëfal euh, ñoo ngi xam ne kooku mooy Nabou Mbengue <laughs> di ko jaajëfal ak Ndioba Ndiaye nga xam mu ngi ci kër ga Fatou Fall Ndiaye Serigne Baye Serigne euh, maam Sey Ndiaye sama rakk maa ngi koy nuyu ay dëggay fëri la maam sunu jigéen ba ñu ngi koy nuyu Serigne Lamp soxna Mbaye hmm. Abdou Mbengue nuyu naa ak Baye Serigne Saliou Gueye bàyyi wunu kenn Goumba Ndiaye ok noonu lay demee li ñu dese si waxtu bëritul 15 minutes moo ñu dese léegi maanaam li waral coow li Euh, ba tax ma invité la parce que tamit euh, gis nañ que ni génn nga single. Mhm. bon instant bi mi ngi si YouTube en plus tamit da nga génn single nga accompagner ko ak euh, clip. Mhm. ok nan la fa demee na la fa demee parce que gis nañ ni que que ni def nga ay rénovation. Mhm. def nga ay rénovation. parce que génn nga single. nga accompagner ko ak clip. teewul tam nga def CD.

sama bee passé waa TFM ñoo ma ko ñoo ma ko filmel hmm. mais dama gis ci booy bi euh, xam ne booy bi am na qualité. ak talent booy bi am na talent. Hmm. aussi li ngay dàq mu jëm ci àll bi nga dàq mu jëm ci biir kër gi. Hmm. nit ñi waxu ne waa Ngaye ñam leen Mboose. production ah mi ngi kii affaire de. waa kii nawetaan nawetaan pour aussi yow ma seen fay. ku mel ne bu naa ma vraiment suma rak suma xarit. à tout moment tamit day jël sama affaire di publier. xam ah, nga sot sax ci la bokk quoi vraiment Dompat par si sot la bokk quoi. Euh, je crois tout récemment bi may gis euh, vidéo bi. Euh, mm-hmm. instant bi yegg na si 400. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi partagé ak tamit promo bi nan la fa demee tam gis naa le tant que yaa ngi yor CD di jaay nan la fa demee na na waaw nan la fa demee. waaw sant yàlla rek xam nga mooy li ma wax rek nit boo nekk ci dëkk bi. Mm. fexe la amante nit ñi jaama rek. waaye boo nee man faalawuma kenn wala kenn mën lu ma dara mm. bis dina ñëw boo xam ne doo mën sa bopp dara mm. te man sant naa yàlla ak sama liggéey ndax sama barke bàyyi mm. ñépp samay waay lanu tey su ma la am jëndal di nga ko jënd loolu sant yàlla la may gën a joxe encore xale yi nañ gën a jox mag ñi cër te xam ni àdduna bi amul solo xoolal damay romb ay mag sax dañ may ñaanal barke Sëñ Tuubaa te loolu xam lu ma ko may sama ak yar waaw ba tax na nag loolu loolu tamit du ma ko ndamoo du ma ko dara li képp ku ma gis xale bu ndaw sax bu ma ko rombee dama koy nuyu. man noonu laay doxee daal. ok li li ma bëggoon xam mooy gis naa que ni def nga ay CD. Mhm. léegi instant bi Petit Madj ñaata CD la jaay. ak tamit euh, kii bi euh, production bi nan la fa demee kan moo kan moo la defal euh, kii beek yooyu duplication beek yooyu nan la fa demee. waaw mooy li ma wax xam nga yàlla dafa def affaire yi fi ma dëkk bi dafa dafa metti mhm. te ku ne xam na ni nit ñi bëgg nañu jàpp te dëkk bi neexul. Mhm. ma yooyu moom laa jaay ci laa fay film bi. Mm-hmm. ak ñi ma woy ku mel ne Sophie Dia sama jigéen. Mm-hmm. jàppale ma jox ma xaalis bu bëri ni ma defal ci clip bi. ok ñu koy jaajëfal de passage. Sophie di mbay. Uh-huh. yaay Tafa Mbay. Mm-hmm. kooku Adja Mbène mooy yaayam. muy jigéen ju gën man góor. Ibou Diop suma xarit. dëkk Ndiop. di suma promotionnaire de classe. chéri mam Awa kooku Adja Ayda la ñuy wooyee yaayam. Mapate Diop la ñuy wooyee baayam mooy chef de quartier ba. waaw ah moom it vraiment jàppale ma ci affaire bi. Pape Cheikh Ndiaye boo demee HLM. di douanier di mais mais ñaar sédé nga jaay <laughs> waxuñu ko instant bi ma ngi dégg gaay ma ngi ma ngi dégg naa gaay ñu ne am nga xaalis moom ko defaroon 50 ah. CD laa defar rek même pas 50 000 sax xam nga rek hmm. yooyu da pour xam nga rek vraiment waaw pour jàpp ci affaire bi rek hmm. léegi euh, Didier Gor euh, léegi dañuy balancer euh, son bi ñaar ñu andi sax acca Gaël Gaël Chéri boy bul ma di mere waaw waaw bul ma indil jaaxle mbëggeel du caaxaan xol du jàpp ñaare mbëggeel du caaxaan ki nga gën a miinoo saa yoo ko gisul we ma chéri boy way naa la sama chéri chéri boy yaa ma leen gënal ma chéri boy ma chéri boy ma chéri boy ma chéri boy yow ma jaay dama lay wayal sama chéri chéri boy sama chéri chéri yaa ma leen gënal ma gën ci ma a leen ci ma bëggee nu ko raw la bëggee ba tax na bëgg nga ma naa la bëggante la kon li si des mooy ñu mun a lente chéri ni nga ma bëggee yàlla xam na ko Ah, yow ki may bëgg a way moo. Demba wayal. Chéri Idi lay woo waaw waaw waaw. wuy dëggal Chéri Idi mbay ko. yaa jigéen ju man ko. yu dëggal suufi jaa ngi nii. yaa jigéen ju man ko. kooku Adja bi ju bay yaayam. mooy ko. dëggal yaayi Tafa Mbaye yi. mooy jigéen ju ko. bi cekketel sa mbëggeel ci Feeling sama ngeel ci Feeling Baaj cekkatel ci ngeewal yëngu lu ko waral sëgg jëre mi ci beey Abdou Diouf saa xaya mi ci làmbaay doomu Asu Njaay Abdou Diouf borom Torino Serigne Fall man bëgg naa la way naa la bay dëngal ñun MNT moo neex xot say bay dëngal doomu jàmbur ku ko yàq danga koo jurul oh, aligi ndaam loo fekkee faj ko aligi benn ndaam ah de bëgg naa Diop doom yaay bëli ma jee soo koy seeri ma awa eh Ibou Diop neexu leen eh waawalaay kenn bañ a Sénégal ñëw leen di fecc yu bees bi waa ngaay ñëw di fecc yu bees bi Adamo ñëw leen di fecc yu bees bi eh Sedaf ñëw leen di fecc yu bees bi Cheikh Ndiaye yaa ngi may seen yaa ngi may xool ne woon di feccu bees bi dala ne woon di feccu bees bi te dala ne woon di feccu bees bi Baye Serigne ne woon di feccu bees bi ok noonu lay demee am na ku nekk si ligne bi ñoom tamit si lañ bokk ah allo. waaleykum salaam naa def. lépp jàmm. moom mën nga ñu baaxee tur bi ah. ok mën nga wax moom Pod Manca. oui allo. allo. Ndeye Soxna Ndiaye. Ndeye <laughs> na def. maa ngi fi Petit ça va. ça va bien. naka affaire yi. kontaan nañu de vraiment. gis nga Petit. waaw Petit ko jaral ci Pape Ndiaye la ñuy wax nii. waaw yow yaay sama chéri ko bu ñeneen sama chéri kooku sax laay wax. waaw jàppale Pape Cheikh Ndiaye. pap Cheikh koku eh, pa Mor Fatou Ndiaye ni woyé bayam Adja jalla ni woyé yayam waaw waaw. seri soxna ngok ak sama seri bu ñaawal ba barké Serigne Touba. dama damaa ta wax nak motax yeen seen jëkkat moma jappalé jàppale. mais kontaan nañu. wa ñoo gëna contane seri koku merci waay. ok. ok non lay démé ñu jaajeufal koku non légui li ngi déssé ci wax du bërul légui euh comme que euh bu né petit match ni ngeewal kon tax nga ci rep sam nga ci eh, sap mhm. legui dama bëgg ngeen tok fi mhm. wa yeen ñaar seen dio bu ko defé ah, moy lool acca té émission bi dama ko tuddé sama ben xarit bo xam dafa ma bëggal bopam wa ndaysan muy nday ko du ciam mhm. euh dëkk fi kër ñom sufi ciam ma dakar diko nuyu de passage nana sala ji ak waaw allo allo wa way waaw ko kan la futi may man la wa koku man la sufi Sophie Dia nga maa ngi bëgg dugg rek affaire yi kii ba mooy loolu waaw kooku mooy Sophie Seri Idi Mbay ah. Adja Mbène Diop la ñuy wooyee yaayam dëggal yaay Tafa Mbay ay lii lu koy fay yow dama ni macha allah yaay jigéen man góor dara fayu ko dama ni idi nga ñaaw dama de idi di ko setan mu fii ñaaw da ko bëgg eh idi du la nga fii ñaaw da ko bëgg eh idi yow la bëgg yow la bëgg waxul yow la bëgg géej gi nee la bëgg Sophie ceekateel ca mbëggeel ah lii dara fayu ko yow yow dara fayu ko papa xam nga ni papa moom sama goro la <laughs> waaye lii dara fayu ko Sophie Mack man kontaan naa parce que man ngéwél oma ci sens interdit fu ma neex dugg fu ma neex génn xale ba gën a ndaw mhm. ba ca meer ba gën a màgget yéen ma bëggal seen bopp oo ma seen fay di ngeen maa bëgg ba sama yaay ñëw seet si ma ni ma duutuma la seet si parce que Seydina Muhammad dañu ma sëti dama laa bàyyeeg duutuma la seet si parce que ñoo la bëgg téye la tenir ngeen ma jàppale ma ci côté bu ne man oma sens interdit yaa ma yëkkati rek am naa ko taxaw pour lijjantil ma loolu. nuyul ma sa booli ma ta ba sa xarit ñaanal na sa jàmm yàgg bu petit ma. amiin amiin amiin defal nga ma lu rëy loo nga xamante ni fii dugg na ma ni si dugg. ndeysaan. billaahi li nga ma defal dafa rëy ci man. xaalis bu bëri la ma jox xaalis bu bëri la ma jox ne ma defar ci clip bi moom moom. nañu yàlla nañu yàlla la fal cet. amin amin ñu fekk lépp sa tal. ana ana sa xarit ba walimata ba sa xarit ana walimata ba sa xarit. mu ngi noonu walimata nee na mu ngi oote amee ngi nii. nuyul ma ko ami. waaw nuyul ma leen ñoom ñëpp. waaw bëgg maa salaamaaleykum. maaleykum salaam. ngeen def. waaw ñu ngi nii rek. waaye nañ ci jàmm ah kon. ba kontaan ngeen. ok noonu lay demee euh, li ñu des si wax du bëreetul 4 minutes moo ngi dese mais dama bëgg mooy loolu ngeen def diw bu nga xam ni. acca ah mais sama grand dooguma la sax. Hmm. waaye euh, ñun mën naa ni sax man way doon dafa doon loo xam ni doon lu ma xëy rek forcé ko. Hmm. ndax sama papa da daan way sama yaay da daan way di ajaakoo du mbéy amaana sax même su ma demee bay découragé sax moo may woo ba ma ñëw ni ma jàppal dina baax ndax lii. dafa aar dafa doon loo xam ni géej la kenn moomu ko amaana sax tukkulóor yi sax da nga leen gis ñuy way waaye man mi nga xam ni sama papa da daan way di géwal sama yaay daan way di géwal kon su ma woyul damay tooñ. Demba waaw. bu ma ñëwee fii. ki nga xam ne mooy borom dëkk bi di Maguette Wade. dafa ñëw koñ ba. ni xam xool na ne kër yi kër xat na. mu yóbbu nu fee ñu koñ koy kër bu ne dinaa la may parcelle. dañu woon duñ ko wax sax mais nit bu la defalee lu baax da nga ko gratuitement. magat waadi yalla yalla guddal sa fan hmm. jin fara waadi ndiak yuq mi ci songu xer aja jooja njaay la ni wooye sa yaay alaaji waadi la ni wooye sa ma maxet nga bokal ndek bay magat ya ta lampi magat defar nga tali magat defar nga stade bi abattoir bangi ni nii magat ngàcce ngalama yalla na oyof bi no yàlla na bi oyof barke Serigne Touba wa di ñaanal autorité yépp nag ndax man ñépp samay way lanu mais ku def lu baax dang koy wax mm. merci beaucoup yoole naa la gëy naa ko daan jël waaw la ya rasulillah waaw la la wa wa jamono ji bo yorulee yo de bokko waaye ngañ demba jallo bu la mouvement andi suqali kadior ngone sa yaay jala ni jooyta noppeeguñu ajaa màggat sow yàlla na ko yàlla yërëm ngañ jàlloo mooy dimbali néew doole yi ngañ jàlloo yaay jàppale nit ñi ngañ yal na la yàlla lafal cet ah ndeysaan di nuyu ñépp nag waa mbir na fàttewu mun kenn président ay mu ngi ñi nuyu nan la waaw bu ñëw ngaay nuyu benn géy nun lan la ndeysaan joxu njaay suñu papa as diagne nag duñ ko fàtte as yoro xujja yoro ma mi na naar yaa si naar yoro xujja mbaykaañ as mooy dimbali moom it nit ñi nee nañ kuy def lu baax bu mbokk ñu tollee doo ko wax hmm. ñun géwël ku def lu baax ñu wax ko hmm. Omar Sock maa ngi lay nuyu Papa Fallou Diop yàlla na yàlla guddal sa fan hmm. day fekk nit am problème mu bàyyi ba guddi mu fekk la ci kër dimbali la te kenn du ko yëg ñun ay journaliste lañu ñun xam nga dama gunu télé nag waaye ñun lu ñu gis war sax lu baax nañ ko wax nag waaw Yacine Diop sama yaay nuyu naa la jigéenu Bamba Diop tubaab ne la civilisation augmente la volonté de de la femme yaay bi su njaay waaye nag du ma fàtte sama rakk ci Bouba kooku Fatou Diop jëli mooy yaayam mu bokk ak koso maam Thierno bi fi indi baal yi bërki démb waaye nag ngàcca ngala manga FM tafa lu njëg njëgaay mënu ma leen a fàtte sama jar nga ne a toog yàlla na yàlla dund balay muur nga sëy barke Cheikhul Khadim ba yow sa papa Dabia sama xarit la sama doomu ndey la waaye fàttewu ma maam góor ak DJ El Hadj Ousin mm, ah ñoom ñoo ci sot ñoo jàpp ci affaire bi tey bu nu génnoon affaire bi te ñoom teguñu ko kenn du ko dégg kon gars yi nañ leen di bàyyi xel di leen fàttaliku waaye safoor chauffeur chauffeur yi jakarta yi taximan yi posoman yi fàttewuma kenn man gars yi ñëpp samay waay la docteur Atou Ndour nuyu naa ko waaye sama yaay Benga Ndiaye ma nga ci liggéey bu ma fàttewuma ko ok li ñu jagleeloon si waxtu instant bi dafa jeex tàkk léegi man mhm. euh, message ngay euh, lancé mhm. ak euh, ñi nga xam ne say fans lañ CD bi tamit nan lañ def ñoom ba am si ak tamit message bu nga xamni ya nga ko bëgg wax nga nga nga nga profito nga jallo ko après ma bayil ngeen def du tamit mooy loolu ñu wax rek mooy santaat yàlla rek euh, ndax yalla bu defee nga judd nek ndox say morom mm-hmm. ñoo yalla jël leen bayil la fi yow du sax njambar mm-hmm. te ñoo nga xam mo ñu tamit nekkon ñu baaxa baaxa baax yalla na leen yalla gëna doli leer mm-hmm. ci même mbayam mo ma fàtte du ko wax duma ko fàtte du ko wax mbay baaw waye tamit sama rakk ci kër ga mënu ma leen a ñoom Tafa Diop Khadim Lampu Baye Serigne Tafa ñoom Abdou Mbeng ngiwul gep eh, samay papa sama papa Abdou Mbeng mom di ñaan yalla budal fanam hmm. Abbas Mbeng sunu kilifa nga fa legi legi eh, legi diyo manam ngeen tagoto ngeen ñamal gaay ci son bes bi acha rabbana rabbana ini morso rabbana mam yalla ilaw dama ñaanal nga defal ma li gën ci man. waaye fàttewuma Ablaye Mbengue sama doom. kooku muy Ablaye. Moustapha mooy baayam. Moustapha mooy baayam. Sëriñ may mën a jaay. mbokkum yaayoo xaadim laayoo Sëriñ Munaas Njaay. waaye dama ni daw jiitu taxuloo doon jiit yàlla ay juwe. ti te momori momori mbirum daan. nga ni. saa la combaan mi bàkkoon dameel. waaye ndey ko lu càmm. ah koku aja jang sow la ni waye yaayam koku moy jigen jigenu moy jigenu serin cham waye ndaysan sama jigen ba fatewuma ko nday asu cham ak sofi koku ni be le sen yayi moy sama yayi ma ngi len di nuyu indil jaxle mbeugel du jaxam japp ñaare mbeugel du jaxam ki nga gëna mi ok non lay demee ah euh, non lay demee peut être maa ngi nekkoon suñu invité ci couleur urbaine ñu koy euh, jaajëfal bu baax si disponibilité bi ak tamit euh, nga génn single bu bees exclusivité bi ñu am ko si couleur urbaine tamit je crois tamit bii du sunu première rencontre je crois bi mooy quatrième rencontre ñu la si jaajëfal bu baax léegi ma bàyyi leen ak single bi di gërëm waa hôtel Kumbalamba bu kel hmm ñoom it moo tourné clip bi dama woo seeni job mu mën waxal sama jigéen euh, kumba ak ana vraiment ñoom it ma dem jox ma foofu gratuitement fayuñu ma dara ñoom it waa hôtel kel boobu maa ngi leen di ñaanal seen papa jooju nga xam mooy alaaji papa job génn àdduna yàlla na suuf oyof ci kawam seen yaay ji nga xam ne namit ndeysaan yàlla na ko fi yàlla bàyyi waa di gërëm lépp kontaan nanu parce que li nga def ni dafa am solo di leen wax ni nag clip bi incha allah la Euh, yóbbu naa ko ci télé yëpp hmm. xam naa affaire papa coon bi moo ko xaw a baare hmm. mais si je ne me trompe pas normalement tay war na commencé daw TFM ak yooyu hmm. waa ngeen di leen wax ni daal waa ngaay amuñu dul yéen bëgg na nag fan yi def ay activité comme affaire reprendre nañu bëgg naa insha allah ma def ci koñ ay concert may ko gratuitement ak yooyu ndax bëgg nit amul lu dul ku la bëgg eh, loolu na am solo dina tax ñuy xëy suba ngoon en tout cas xaar leen petit match ak groupe am ngeewal gi di gën groupe nag ba pencum ko pencum ko aussi ma ngi leen di gërëm waa pencum kayor ndax kat aduna bu mu neex ba nga fàtte démb ñoom man ak ñoom ba tey ba suba ba ginnaaw suba yàlla nañ yàlla defal jàmm ngéwal ga ma jógee aw ma seen fay muy sama yaay lu ko dala ci mag ñi umi njaay ak samay tanta ak samay bàjjan samay rak samay mag kulim da ngay juum ngaay ma kenn aduna bi yépp maa ngi leen di gërëm yàlla na leen yàlla defal jàmm ngaay fm ca kaw ca kanam mahmoud diop yow it kontaan nanu jërëjëf ah ok ñu koy jaajëfal lu baax ah di leen jox euh, dig daje inshallah ba beneen yoon ok